jërëjëf Ndeye Coumba Diop kan ci xibaaru marax yooyu le mbokk yéen itam jërë ngeen jëf ci topp bi la voix des sans voix Walfadjri altine bu jot euh, ñu di ci ànd ci l' édition du soir ak Ayoba Faye Ayoba ñoo ngi leen nuyu. maa ngi lay fay euh, Issa di nuyu mboolem sénégalais yi ñuy suivre ci euh, télévision bi di nuyu internautes yi ñuy suivre suñu plateforme yi di am mbégte bu baax teewaat fii ci édition du soir. jërëjëf Ayoba Faye tey édition histoire ñoom euh, plaisir dalal Ahmed euh, Diallo Ahmed Diallo mooy euh, coordonnateur national bu gox yu bees ANTA ANTA moo di alliance nationale pour la transparence et l'abondance moom Ahmed Diallo itam mi ngi nekk membre ci coalition Diomaye président Ahmed ñu ngi lay nuyu. asalaamaaleykum Issa ñu ngi lay nuyu di nuyu Ayoba di kontaan ñëw ci plateau bi. Euh, di beral nuyoo aussi particulièrement sama waa commune di waa campement Ngexoox euh, di profité aussi di leen jottali benn message yu ma jeunesse bi jox tey suba. mooy ñu ngi laaj seen stade depuis des années mun ñu ko am ba ñaari années yi passé yëpp dëkk bi amuñu nawetaan donc mu nekk une tristesse pour la jeunesse de Ngexoox et qui tenait à message soit passé. nu mmh. mu mmh. yi dégg ko euh, jàppale maire bi. mu mottali yéene bu mu am. defar stade bi. mais loolu foog nga leeralal ñu ko euh, stade la bu ñu toj pour tabaxaat ko wala dañoo amul stade wala lan. pour mu gën a leer comme dañaa amul stade am benn projet stade bi nga xamante ne depuis 2014 ñu ngi koy wax mais stade bi mënul pare chaque année maire bi ne budget bi am na xaalis bi am na année prochaine dina pare donc chaque année euh, du pare et chaque année population bi du ñu mën def seen nawetaan. donc amatuñ explication ba jeunesse bi fan yi yëpp ñu ngi def ay affiche di ko statut partout si dëkk bi di laajteen stat fu mu toll donc euh, je pense que maire bi amatul capacité trouver des financement pour state boobu donc euh, euh, dañuy ñaan état bi dem wallu ko dimbali ko mu am ay moyens pour eggali stade bi pour le bien des populations et de la jeunesse de Nguekokh jërëjëf on espère que message boobu la tàbbi na ci nopp ñu ko war a dégg ak le maire soo Songué Diouf Ayoba dañuy daal di door sax waxtaan wi ak yow ndax li xew moom ci suñu mbir la muy euh, wàllum kër këru tuskaay xibaar yu réew ma euh, Sénégal euh, ñi nga xam ne nag ñoo di conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal mu di ñi nga xam ne ñoom ay këru tuskaay xibaar. ni ki ëllëg ñu décréter journée sans presse maanaam bis boo xam ne presse bi du fat see xànc ak morom ja bu dee télévision yi mën nañ ne euh, signal yi dañ koy brouiller bu dee presse écrite bi la aussi warul génn dinañ ñëw ci moo doon beeg ñi nga xam ne ñoo ko war a suivre ak yooyu noonu mais euh, ci idée bi euh, est-ce que xalaatoo ne c'est une décision boo xam ne c'est déjà voué a l'échec Ayoba Faye bu fekkente ne médias yi ñu ngi dégg ay voix discordantes un peu partout bon du ma ni voué à l'échec parce que eggaguñ ci suba ba xam naka la euh, yeneen euh, naataangoo yi kër naata kër kër kër taskatu xibaar yi di wuyoo ci appel boobu nga xamante ni tey jii CDEPS moom la def jëmale ko ci ñi nga xamante ni ñooy tas xibaar ci réew mi mu doon ay journaux mu doon ay rajo wala mu doon ay télévision euh, comme egguñ ci suba mënu mënu ma ni se voué à l'échec mais li ma mën a wax mooy Euh, décision bi nga xamante ni jël nañ ko ni suba dañuy euh, fas yéene def journée sans presse c'est une décision boo xamante ni vraiment euh, pour man c'est c'est c'est c'est inopportun c'est inopportun parce que Euh, dañuy jékki rek nii dañuy jël dañoo dañoo jël décision euh, jëm ci journée sans presse suba te amul ay préalable maanaam amul benn décision boo xamante ni jël nañ ko ci ginnaaw gi muy wax sax dañuy def euh, nu mu tuddati benn benn benn benn benn avertissement wala benn mise en garde wala benn mise en demeure ñi nga xamante ni ñoo fi régime bi bu jëm ci ñu dem ci journée journée journée sans presse par exemple munoon nañu par exemple ni semaine bii dañuy boycotter les activités du gouvernement ñu mën koo sax dégg mu doon benn préalable boo xamante ni teg nañ ko fi peut-être par exemple mu doon avertissement wala mise en garde wala sax ñu ni suba euh, nu mu tuddati dañuy euh, dañuy dañuy def euh, journée journée journée noire et cetera. wala édito commun par exemple voilà wala ñu def édito commun wax. mais danga def édito commun ba pare ci conclusion bi nga ñëw ni suba dañuy def journée sans sans sans presse maanaam tey jii man loolu ci édito commun bi laa ko laa ko laa ko yëgee kenn kenn kenn kenn euh, kenn avertiruma kenn defuma kenn defuma dara. Euh, te journée sans presse dafa nekk loo xamante ni maanaam ci extrémité la boo koy def euh, day fekk day fekk vraiment ñu teg ci presse bi loo xamante ni euh, métti na métti waay boo xamante ni maanaam extrémité la. loo xamante ni àggu fa kon àggu fa te àggoon na fa li li li tax ma ni àggu fa mooy. maanaam tey jii jàppuñu benn journaliste tëj ko ci kaso bi reyuñu journaliste dóoruñu journaliste man loolu laa tuddee ay extrémité te Sénégal àggoon nañ ci extrémité yooyu diggante deux mille vingt et ak deux mille vingt quatre maanaam arrêté nañ fi ay journalistes. du benn yoon du ñaari yoon. Euh, arrêté nañ fi ay journalistes kenn ci ñoom muy Pape Alé Niang dugg ci grève de la faim ba euh, nu mu tuddati dundam nekk ci diggante boo. xamante ni doy waar nekkoon na dans le coma ba. waxoon nañ fi sax ni dañuy def journée sans presse mais journée sans presse boobu xam nga antuwul mu jiwuñ ci mu jiwuñ ci àgg te pour man euh, bi nga xamante ni jàpp nañ euh, ay journaliste ku ci mel ni Pape Ndiaye nga xam ne fii ci kër gi la nekkoon ama jàppoon nañ Pape Alé Niang convoqué woon nañ fi yeneen journaliste tëj leen ku ci mel ni ci Romane laa jàppoon nañ des techniciens des médias même bu dee ñenn ñi dañ naan ay animateurs ay oustaz ak mais c'est des techniciens am na leneen lu xew mooy ci événement yi nga xamante ni amoon na fi diggante 2021 ak 2023 brutaliser nañ ay journalistes sur le terrain maanaam jàpp ay journalistes dóor leen ba gaañ leen am na ci benn confrère boo xamante ni moo représenté woon agence France Presse bi muy Maguette Gueye dañ ko jàpp duma ko ci côté université dóor ko ci biir euh, fogo euh, police bi ba blessé ko dóor ab sa aan ak dóor ab sa aan euh, en février 2024 ba mu perdre connaissance ci biir fogon fogon fogon policier bi foofu la woon ci ci ci place de la nation mm. yooyu acte nga xamante ni régime bi fi nekkoon teg na ko waroon na yóbbu ci patron de presse yi ñu def journée sans presse pour man mm. defuñu ko tey jii li waral tey jii seen journée sans presse boo liiree li nga xamante ne mooy édito bi mooy difficulté économique yi nga xamante ne dañoo jàpp ne nguur gu bees gi fi nekk moo leen ko teg mooy impôt yi ñu leen fayloo mooy TDS li mu leen wax ñu fay <coughs> ak mooy contrat yi nga xamante ni convention yi nga xamante ni dagg nañ ko ak hmm. publicité yi nga xamante ni eh, régime bi eh, gouvernement bi fi nekk dagg na ko loolu lañ ni moo leen teg ay difficultés économique ba ñu jëm ci journée sans presse te pour man eh, waxtaan moo waroon a jiitu waxtaan moo waroon a jiitu waxtaan woowulee Ahmed Diallo le président de la République dafa tëj ay buntam recevoirul en tout cas ñi nga xam ne ñooy patron média yi malgré que recevoir na les jeunes reporters est-ce que du tey euh, terrain boobu la ñu war a dem mooy waxtaan ci seen diggante l'État ak euh, ñi nga xam ne ñoo yore médias yi tey teñ na ñoom suba dañoo fas yéene def journée sans presse. waaw Issa effectivement xam nga Sénégal yàlla def na euh, nit ñi am nañu sagesse. ba problème su amee suñ ko waxtaanee am solution. et je pense que suñu waxtaanee dinañ am solution. maintenant lan la ñu war a waxtaanee xam nga loolu mooy question bi. Mm-hmm. parce que ku nekk soo ñëwee si waxtaan indi lu la intéressé. juboo du am parce que état bi dafa am détermination dakkal lu ñuy woowee délinquance fiscale am patron de presse yoo xamante ne dañaa bëgg peut-être continuer di am ay avantages yoo xamante ne avantages fiscaux la maintenant il faut ñu waxtaan très souvent damay dégg nit ñi di wax na ñëpp fay seen seen seen impôt mm. na entreprise yi fay parce que loolu mooy dundal état bi mais dafa jot aussi ñu am benn réflexion Issa soo ko bu ñu def lancement sama livre bi Sénégal bu bees on a abordé le sujet parce que c'est un sujet important boo xamante dañ ciy réfléchir profondément am ci solution presse bi dañ ko war xalaataat parce que la presse nekkul benn industrie wala benn entreprise comme les autres types d'entreprise donc képp kuy defati analyse bul nee na presse bi fay impôt comme nu ko ñëpp di fayee parce que bokkul boo xamante ne soo xoolee ñoom ñëpp seen historique daanaka ils sont pas rentables c'est-à-dire la rentabilité est quasi impossible presque dans le milieu de la presse te loolu du Sénégal kese soo demee France soo xoolee daaw aide à la presse bi jege na ci 200 millions d'euros États-Unis pareil donc la presse est par nature non rentable une entreprise qui n'est pas rentable ne peut pas être comme toutes les autres entreprises rawatina fii Sénégal presse bi seen business model gisaguñ ko publicité yi demeewul noonu y' a pas assez d' entreprise privée yu am doole donc il faut ñu xoolaat lan mooy entreprise de presse mu am benn statut boo xamante ne statut bu particulier la te du bokk ak yeneen entreprise yi parce que rôle bu ñu joué ñëpp nangu nañ ni rôle bu ñu joué c' est essentiel pour la démocratie rôle bu ñu joué rôle lu quatrième pouvoir la ñu joué donc on ne peut pas les considérer comme l' ensemble des entreprises suñu nangoo loolu déjà waxtaan dina solo mais suñ ko nangoo day am ay contrepartie parce que presse kenn dootu ko utiliser pour def lobbying wala pour def sa communication moo tax dans nos propositions yenn hommes d'affaires yi yenn industriels yi qui sont dans d'autres business il ne doit pas être permis ñu am ay euh, entreprise de presse parce que dañ koy utiliser soxlawuñu rentabilité bi dañuy investir pour assurer seen bopp nga gis yenn homme politique yi dama koy tudd nommément muy Bougane Gueye Dany mais la façon bu muy utiliser presse am c'est et ça c'est la réalité. léegi la donc léegi la ko utiliser noonu. non depuis longtemps lu mu koy utiliser. c'est-à-dire à un moment donné léegi lu tax ngeen toog maanaam ñëw ba pouvoir rek doo ko gis. non non non non nekkul ñëw ba pouvoir. man dama si def analyse. et mm-hmm. tu as tu vu. Mm-hmm. dans mon livre balaa ñuy ñëw pouvoir. j'ai dit que yenn industriels yi yenn homme politique amuñu droit am presse. la presse c'est d'abord les journalistes. journalistes la ñu war a organiser ñu moom seen entreprise de presse. organiser wu en coopérative état di leen subventionné ñu am une indépendance totale pour donner l'information aux populations suñu defu loolu duñu mës a am indépendance de la presse parce que aussi il faut ñu xalaatal suñu bopp si on réplique les modèles qui sont en France aux États-Unis ou ailleurs ce sera toujours pareil parce que foofu aussi presse bi am nañ benn degré de servitude envers les oligarques soo demee France. ñooñu ñooñu milliardaires oui les milliardaires. moom presse bi y a les Draghi Bolloré. qui contrôle l'ensemble de la presse. maintenant modèle boobu est-ce moom lañ bëgg. bëgguñu ko on veut journalistes yi nga xamante ne moom lañ jàng. Mm-hmm. bëggu ko mu doon seen passion. parce que je ma gëm ne journaliste bu nekk ci métier bi passion la. parce que dafoo ko pour wut alal dafoo ko pour tegaate pression. non dañuy wut alal de dañuy wut alal de. non soo ko bëggee wut alal dañuy wut alal man damay wut alal man aywa mii day wut alal. ci presse bi nga wut à part à part la presse la la passion yooyu wut alal. mais pas ci wut alal lan nga ko dégg. mag buy naan ndox bi tàng suukar nga ko dégg alal. le journaliste est de son métier de donner de l'information. voilà waaw loolu. mais war na am dara li muy gouvernement war na fexe ba ki nga xamante ni métier am. Mm-hmm. mooy joxe information mu am cadre bu mu ko defee. ba am ba am un salaire décent pour vivre loolu mooy mais man pour fekkee wut alal moom. journalisme du pas wut alal comme ni ko ñenn defe mais nag mag bi naan suuf ndox mu tàng suukar si moo tax de. si biir journalisme je pense que c'est pas l'objectif. maintenant suñu poser les bases am ñoo xamante ne yàlla def na sujet bi intéressé ñu. Mm-hmm. ñu def une réflexion profonde. dugal ko suñu livre. Mhm. il faudra que ñu bëgg a réfléchir ci sujet bi yëpp. ba ku nekk ñëw bañ a taxawee intérim. Mhm. ndaxte suñu defee loolu solution du am. parce que benn moratoire mooy am mais le problème va revenir dans les années à venir parce que les entreprises de presse du ñu am rentabilité. Mhm. donc les mêmes problèmes vont revenir. dañuy faj góom bi mais du ñu faj feebar bi. Ça, c'est le maître mot, hein? C'est le La voilà. rentabilité. Ouais. Effectivement, c'est la rentabilité. Le modèle économique. Donc, catégorie spéciale, nous devons inventer en espérant que fii Sénégal suñ ko trouver ba mu dox mais les autres pays vont nous imiter sur ça parce que c'est une question essentielle dans l'ensemble des pays ku seetlu bu baax dans la presse occidentale am na ay modèles yu juddu mhm. mais modèles yooyu mooy comme part abonnement la ñuy def nit ñi di fay mais c'est pas rentable c'est encore les abonnés qui continuent de cotiser yéen mhm. waa Walfadjri xam ngeen ci dara plusieurs fois vous avez bénéficié de la cotisation des populations Sénégalais yi jël nañ seen gafaka dimbali leen jàppali leen pour kër gi taxaw. oui mais donc, ça c'était donc, dans une situation exceptionnelle. vous avez cité Mediapart c'est une réussite. c'est vraiment au niveau planétaire. c'est une, réussite mais je ne crois pas. Uh-huh. que les Sénégalais ont la culture de payer pour avoir de l'information. même la culture de payer pour écouter de la musique les Sénégalais l'ont pas. imagine encore tey jii nga indi modèle économique comme Mediapart. moo a déjà sur a a la maison des reporters je ne sais pas si vous connaissez. effectivement moo tax je dis en exemple les gens cherchent des solutions mmh. ailleurs mm. parce que xam nañu ne c'est la seule façon nga am entreprise de presse bu libre mais Sénégal fii suñu am réflexion bi mm. dañu jéem a trouver modèle bu nga xamante ne suñu ko trouver ça mm. peut inspirer le reste du monde ah. parce que le problème et et et et mondial. Ouais. Souvent on dépend de l'État, État bu coupé ay rek euh, presse bu bari dem.